asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér sëriñ Maam Baara Mbàkke moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdul Aziz moom Cheikh Mahamadul Amin Baara moo am mbégte di ànd ak yéen ci jataay bu am solo bii nga xam mi ngi toog ci kanam way juróom wii waaye toog ci kanam bokkam yi di sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Soaybu ngir yëkkati ay kàddu yoo xam ne kàddu yu woote lay doon jëm ci daara ju mag ju muy taxawalaat daara yoo xamante ni bii benn bi mi ngi ko duppee Serigne Touba Cheikh Sidi El Mokhtar yal yàlla doole ay leeram waaye beneen bi it mi ngi ko dara mi ngi ko duppee soxna Asta Walo way wayjuru soxna jaaratullahi Mariama Bousso waaye nag dara jaale ko way wayjuram di soxna Asta Walo moom Serigne Saliwu ñu gën ko miin ci soxna Walo daara jooju nag lii ñaar fukki fan ci wéru tubaab wi nga xamné modi octobre ñukoy amalé nak benn bi nek ca Touba Ilipor bi mu tuddé soxna Asawalo benen bi nek fi ci Madiana 6 ci ginaaw Serigne Abdou Samad ji mu dara jale Serigne Sidi Mokhtar lolo motax nak Serigne Mame Bara ci kanam Serigne Abdou Samad fasiyene yekati ay kaddu ñun ñep ñu sa deglu ko. rahmatullah ñi ngi leen di nuyu mbokk yi ak mbokk jullit yi ak mbokk talibé tay nak ñu ñëwoon fi di. woote benn daare alxuraan joo xam ne dañ ko fas yéene ubbi ci la 20 octobre euh, ci mu tombeek bisub gaaw daara ji nag ñaar la ñu tuddee jenn ji soxna astawaalo mu mag ma maam astawaalo léegi nag dara yàlla ko soxna astawaalo mbàkke moom sëñ saaliw ndax daara ji ñu ubbi di xidmatul xadim sëriñ saaliw moo ñu joxoon tur wi kon soxna astawaalum sëñ sëñ maam soxna astawaalum sëñ saaliw mii fi nekk di wajur sëñ Abo bi moom lañ ko darajaale fas yéene koo ubbi nag la 20 octobre daara ja nag mi ngi toll ci héliport ba fas yéene fee jàngal ay jigéen fas yéene def daara ju mag ju am tawfeex yoo xam ne képp koo xamante ne bii ab jullit nga di jàng alquranul karim nekk soxna Touba la sëñ fas yéene dootoo génn jëm fenn fu dul boo juddoo feneen tamit Touba lañ ko fas yéene jàngale daara jigéen la ak daara góor ji góor ji lañ tuddee sëñ Siidu Moxtaar pàkk bi mi ngi fi sa ginnaaw jigéen ji lañ tuddee soxna Asawaalo mi ngi ci mi ngi ci héliport euh, bi waaw fu ñuy wax quartier jannatu salaam kon sëñ bi tamit sëñ Saliou bi ñu ubbi daar ji ci nekk daar tansil moo ko tuddee xidmatul xadim daaru xuddos lañ ko fekkoon ca xel xelkom image baa ngi fi mooñ ci ñaan loon tey nag ngay sëriñ bi di sëñ Touba ñu xoolee lu bët yooyu nga def ci ñaan te ñaanal ñu ci yàlla def ci barke def ko tamit ca njaboot ga nga xam ne dañ faa fas yéene jàngee ndax dëkk bi li sëñ Touba ñaanoon muy dëkkub jàng ak jàngale fas yéene nañoo taxaw ci loola li timen ngeen ñaanal ci baax a baax ak katan ak tawféex ba daara yi mag daara ja ca poroxaan ju soxna asuwaale ji mag ko te gën ko ak wet ndax yéene rek la te sa yàlla man na lépp bismillah gannaaw bu ma sante bokk yi bu baax baax ak sama bokki talib yëpp ci yéene ji am ci liggéeyal sëriñ bi ak nangu gi eh, yàlla na sëriñ bi boole gàttandu ba lim mu bëgg ñu liggéeyal ko ko ñu defee ko ni mu ko bëggee eh, ci gannaaw ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha ak yéen jure jim ci am ci liggéeyal xam-xam te soññi ñu ci liggéey bii ma ànd ko kuréel bii ànd ko samay bokk ak taalibe yëpp jëf ji ci suñ maam def day lu rëy rëy ci noonu bett na ma waaye bett ma bett na ma ndax li mu waxoon defe na lu ko ëpp waaye jëf jëf ju baax yi duma bett ci moom ndax loolu laa xamoon ci moom kon nag maa ngi koy seeral taalibe yëpp keroog bi ma ñu waxee ne sëñ bi joxe na ndigal kër sëñ Tuubaa ga ca héliport nañ ñu fa jox barab boo xam ne dañ koy jàpp bureau yi dem sanc ko man faa toog dafa liggéey li jëm ci téere bi nga xam ne moom dañ koy jagoo féetewu foofa loolu nag am na yum laaj ci ay jumtuwaay yoo xam ne ku ku toog ci bureau di ci liggéey mënoo koo ñàkk dama ne woon lépp man la war ndax lu ma lu ma jaayante woon ak sëriñ bi la waaye moom mi mu daal di jóg ne loolu moom bàyyi ma mu féetewoo ko waaye lañ ko la la waxoon sax ne moom la cee def def na lu ko ëpp fuuf loolu moo tax ma ne ko bett nga ma waaye bettoo loolu nag sëñ Tuubaa mi tax mu di ko def sëñ moom ñi mu bor dafa am pay kon nag sëñ baa ngoog yaa ngoog rek <laughs> da nga ci defee njort baax <clears throat> li tax sax ma ci wax mooy moom li ma war a wax lépp sëñ Sam wax na ko ndax kuréel gi genn la te bu waxee ci turu kuréel gi rek man moom laa jàpp mooy làmmiñu kuréel gi wax na ba noppi waaye damay soññi sama bopp di soññi mboolem ñi bëgg xam-xam te bëgg sëñ Tuubaa daaram jii muy wax ne tuddi na ko soxna Asta Waalo ñëpp bàyyi ko xel ku am sa gone ku ne nga yóbbu ko fa mu jàngal ko yar ko boobu ëllëgee mu mën a jëriñ yoon wi kon nag man maa ngi koy ubbee ci am naa ko ma tudde soxna Asta Waalo na nga ko bindu bu matee dal nga bu ma dal nga yóbbu la ngeen wax sarde mu ne ba kat muy matee dal rek waaye man sama soxna Asta Waalo tàmbali naa ko liggéey bi man rek laay seetlu loolu na ci tali bi yëpp jàpp te xam ne euh, li lu ñu waroon a wuti lu ne sëñ bi am na ko kon jur ñu jéggaani fenn len sëñ Tuubaa lu baax lépp am na ko te mu ngi suñ biir nañ ko xam te jàpp ko gannaaw bi ma dara jaale sama mag yi bopp it nag di soxna Sowal nga xam ne mooy sunu taw sunu xalifa ñun ñëpp nag loolu it bokk yi dañ ci am seen wàll mm-hmm. kon na nañ ñëpp ànd jàpp ne ñun ñëpp lañ ko defal na fa ñëpp dem teew fa jàppale si soxna si man mi fas naa yéene incha allah bu ma wéree kenn du ma fa jiitu incha allah jërëjëf jërëjëf bokk yi ñoo jot a dégg kàddu yi nga xam ne moo tukkee ci sëriñ Mame Bara tukkee itam ci sëriñ Abdou Samad te bu ko waxee waxaaleel na ko magam ju baax ja soxna waalo moom sëriñ Saaliwu yàlla na yàlla dolli ak wéram gën a guddal aw fanam waaye waxal na ko njabootu Serigne Touba gépp su ko waxee waxal na ko Serigne Sidi euh, Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha muy le 20 octobre ñi di ko sanc le 20 octobre muy sanc boo xam ne dañ ko fas yéene tàmbali ni ko sëriñ Abdou Samad waxee wax nag na jiital na ci am soxna astawaaloom nañ ko daal di bind kon képp ko am am soxna astawaalo wala nga am am soxna waalo moom sëriñ Saaliwu daara jàngi noonu di daaray alxuraan ak jooj xam-xam di amee ca euh, wala doom jigéen joo bëgg mu jàng rek jum mën a doon Eh, moo xam kooku mën a tudd daal te bëgg mu jànge Touba amee yarub Touba woote baa nga foofee ca Touba Ilipor le 20 octobre lay doon ñoo ngi ñaan képp koo xam ne dugal nga fa sa doom yal na yàlla def mu mokkal alxuraan te doon mbuur muurum yoonu murit